وأفاض عليهم من ماء الغيب ما نالوا به أعظم المطالب والذخائر وشرح بهم الصدور والقلوب وجعلهم للدين أعوانا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي من فيض بحره يغترفون ومن غوض مواهبه يقتطفون ومن نوره يستمدون فهو باب الله العظيم وصراطه المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته wa ridallahi alxaalida jamii almuminin mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu se nanu fas yéene tabarakallahu continuer waxtaan wi nga xam ne dooroon nanu ko ci tasawuf tasawuf nag comme ni leen ko waxe du dara lu dul rekk jàpp xol liggéey ko ba lépp lu ci nekkoon ci ay gàkki gàkki jib ko yu bon dañ ca ba set wicc ndax su fekkee loolu amul lu nit ki sawar sawar ci jaamu yàlla di ko def ci waxtu wu ne te fekk xolam a ngi tilim am na malaaka yoo xam ne ñooy rejeté di delloo jaamu googu ndax jaamu ga yàlla du ko nangu ndax jaamu ga bu yéegee ba ci asamaan yi dañ koy delloo ki ko jëfoon te fekk xolam tilim ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ne juróom-ñaari malaaka ngi ci kaw malaaka mu ne am na lu ko yàlla di seetloo ci xolu jaam bi bu jaam bi jaamoo ba noppi su nit ki dafa julli ñu yéegal julli gi mu dem ba ca kaw ñu gis ne julli jooju dey ku bari lu muy lu muy jëw la julleem googu du yéeg suñu gisee ne ku rëy la julli ga du yéeg suñu gisee ne kuy njissal la julli ga du yéeg bu fekkee itam ku bëgg daraja la noonu su dee itam kuy naw jëfam noonu juróom-ñaari malaaka yooyu loolu lañuy xool ci xoolu jaam bi suñ ci gisee tilim mu jiko yooyu su jaam bi wooree wala mu julli wala mu joxe azaka dara du yéeg ci jaamu googu ñu gis ne kon su fekkee ne ci xol bi lañuy xool waaye xooluñ ci jëf ji ak melukaan bi ndax suñ boroom subhaanahu wa taala yonent bi mu ngi xamal ni xoolul suñu jëf yi ak suñu jëm yi xol bi rek lay xool su fekkee ne gis na ne xol yi set na lu ñu ko liggéeyal lu mu tuuti tuuti dana ko nangu te dana ko rëyal su fekkente ne nag xol yi dafa tilim lu liggéey rëy rëy rëy du ca nangu dara moo tax nag mag ñi daa ubbi daara yoo xam ni seen liggéey nekkul ca daara yooyu lu dul tarbiye nit ki ba mën a setal xolam boobu ndax kat suñ boroom subhaanahu wa taala jàkk yi ñu tabax moo ko moom waaye nag bu dee ne am na fu mu mën a fanaan ci xolu nit lay fanaan su fekkee xol ba wéet ci mbooleem tilim tilim yi su fekkente ne itam xol ba wéet ci boroom di ca dugal keneen ku dul yàlla ndax suñ boroom dafa fiir te lépp loo xam jël nga ko boole ko ko ak keneen mom dana doyloo boppam bàyyi lola. nga xamante ni tabaarakallahu moom nga tànn suñ borom subhaanahu wa taala su yërndoo xolu jaam bi gis ne xol ba set na amul benn gàkki-gàkki jikko yu bon mu gis ne itam boroom am na bu wér boo xam ne dugalu fa sëriñ dugalu fa jabar dugalu fa doom dugalu fa alal wéetal na xol ba ngir dëkkal fa yàlla su boobaa nag suñ borom subhaanahu wa taala bu duggee ca xol booba boroom xol boobu la chàkk sikk nekkul ci ne moom la ñuy tuddee waliyu yàlla moo tax nag tasawuf bëgg nag képp koo xam ne tarbiya na la moom tasawuf résultat mooy def la nga bokk ci awliyaullah yi moo tax tabarakallahu euh, soo demee ñu lay wax ne la tasawuf la ci jiitu comme niñ ko waxee ci waxtaan wi weesu ne la cosaan yi mooy téere yàlla bi roy yonent bi lekk lew moytu bàkkaar yi bañ a lor benn doomu aadama boo xam ne doo ko lor ci sa làmmiñ doo ko lor itam tabaarakallaahu euh, sa loxo ak itam sàmm ak yi dox sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg nit ñi tuub nag jëm ci sa borom bàyyi lépp loo xam ne ak mooy la woon tabarakallahu réccu ko ba dootoo ca bëggatee dellu mu mel ni bu ngeen gisee nit ñi dem ba seeni xol yàqu xol bàkkaar a koy yàq bàkkaar mooy yàq xol day dem ba su bàkkaar yàqee xol nit ki dafay daal di nekk nag ku ñemee def bàkkaar ak lu bàkkaar rëy rëy dana ko def te du yëg ne li mu def lu rëy la moo tax tasawuf di liggéey pour rek nit ki dem ba nga xamante ni dootul sañate def bàkkaar ndax ragal gu muy ragal boroomam xam ni bëtu yàlla wi tegekuwul ci moom benn yoon fépp fu mu nekk doonte dafa wéet dana xam ne wéet na ci nit ñi waaye wéetul ci diggante ak boroomam ndax yàlla ngi gis léppam su ko defee nag muy am xorma ci diggante ak boroomam tabaarakallaahu ba la mu sañul woon a def ci digganteem ak nit ñi du ko sañ def itam ci digganteem ak boromam ndax xorma ak kersa buy dox ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala mu mel ni euh, bu ngeen gisee yonent bi sallallahu di wax ne juróom benni euh, jikko ngi nii yoo xam ne dafay tax jëfi doomu aadama bi du yéeg ndax boo ci amee benn ci jikko yi rek loo defoon sa digganteeg sa boroom day wàcc wante du jëm kaw bi ci njëkk mooy al ishtigaalu bi uyubil xalq mooy fàtte sa ayibi bopp di yittewoo ayibi nit ñi am na ñu mel noonu ci nit ñi ñoo xam ne ah, ñoom daal la sëñ Babacar Si daan wax rek ne léeg-léeg nga gis ku yàq tubayam di rey ku rëccule waaw tabaarakallaahu nit ñi noonu la ñu mel dañuy fàtte lañu def mu ne weng su ko defee nag di tudd lu keneen def kon nag képp koo xam ne loolu moom mooy sa jikko mooy sa jikko képp koo xam ne loolu moom mooy sa jikko na la leer ne sa julli yéegul julli gu wàcc la goo xam ne yàlla nangu ko kon nag li jiitu ci juróom benn jikko yooyu yonent bi wax mooy yittewoo ay bi nit ñi waaw yittewoo ay bi nit ñi dañuy wax ne boo joxoñee nit benn baaraam ne ko yaa bon fekk na bank nga ñetti baaraam yoo xam ne yaa ngi ko joxoñ sa bopp lu la baaraam ya di wax yaa ko gën a bon yaa ko gën a bon yaa ko gën a bon ba muy ñetti yoon kon nag euh, li ñuy wax ne sàcc moom mbooloo moo koy dàq bu yàlla tabaarakallahu wuññi woon suutura ñooñu di ko dàq moom sàcc ba dana mujj tourné di leen dàq ndax kon ndeke sàccay dàq moroomu sàccam kon nag euh, yow doomu aadama ay bi kese nga soo demee ba nar tuddu tudd ayibi jàmbur ne na na nga doyloo sa ayibi bopp su ko defee loolu eh, nekk ak jaamu yàlla ci yow loolu itam nekk jikko bu rafet boo xam ne eh, dina la musal ci ngay melowoo jikko bi nga xam ne dafay wàcce sa jëf ba sa jëf du mën a yéeg ba ci topp mooy tuulul amal tuulul amal mooy gudd mébét di dund ci àdduna bañ a gàttal sa lu ne nga ne danga ko am lu ne nga ne danga ko am waaw lu ne danga am da nga gis koo xam ne dem na ba laqaat yu bari waaye rek bis bu ne rek mu ngi foog ne daal dara rëcc ko waaw su ko defee di wut bay mel ni tabaarakallaahu eh, xale bu toll ci ñaar fukkeelu atam di soog a dugg ci àdduna di soog a gimmi moom ak mag moom nga xam ne làq na juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at ñooy yem bëgg-bëgg ñooy yem yitte tuulul amal googu nag su fekkee dem na ba nekk jik ko ci yow nga xam ne dangaa toog ci àdduna di mébél rek waaw di mébél rek di mébél eh, eh, na kat dana am nangam xëy na kat dana am nangam xëy na kat dana am nangam topp loolu topp loolu topp loolu ba taluloo jaamu sa borom talulo tabarakallahu denc ci sa bàmmeel dara loolu itam dana tax boo jullee julli ga du yéeg soo wooree woor ga du yéeg kon doomu dama daal dafa war a gàttal mébétam waaw gàttal mébétam bàyyi yàlla léppam su ko defee nag yëngatu mënul ñàkk naam waaye rek nga bañ a ëppal ci di mébét rek lu ne nga bëgg koo am lu ne nga bëgg koo am déedéet waaw tuulul amal baaxul jikko la boo xam ne bu xasee nekk ci yow bo jaamoo yàlla jaamoo ga du yéeg bi ci topp itam mooy xillatul xayaa muy néew kersa moo ko ñetteel néew kersa boo demee ba amatuloo kersa amatuloo kersa ci wax waaw amatuloo kersa ci jëf tabaarakallaahu léegi nag bari na lool ci média yi waaw tabaarakallaa bari na lool ci média yi Eh, ñu def théâtre eh, néew na ñu ci am kersa te tabaarakallaahu xamuñu ne yàlla ngi leen di seetaan xamuñu itam ay kilifa leen di seetaan ñu ci télé yi itam noonu eh, bàyyi xel tabaarakallaahu ñi lay seetaan te nekk ay kilifa def ci am solo waaw su ko defee ñuy yar kàddu yi ci wax yar geste yi ci jëf tabaarakallaahu loolu itam am na solo lool am na solo lool eh, bi ci des itam eh, boo nekkee ci sa biir néeg wéet sax war nga am kersa sa digganteeg sa boroom rawatina soo nekkee ci sa biir njaboot nekk ci ëtt bi rawatina boo génnee nekk ci mbedd mi nga am kersa ci ñi nga bokkal mbedd mi am kersa ci ñi bokkal pénc mi ci sa wax ak sa jëf ci am solo su ko defee nag boo demee nag ba nga xam ne ñàkk nga kersa waaw lu la neex def lu la neex wax te doo ca rafetal dara doo ca yëwal dara doo ca ormal dara ñàkk kersa googu dana tax boo jullee yàlla du nangu ndax yàlla dafa bëgg kersa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax ne kersa kat branche la ci ngëm branche la ci ngëm kon ku dama branche boobu sànni ko na la leer ne garabu ngëm nee na wàññi nga ci lu rëy rëy rëy rëy tabarakallahu bi ko ñeenteel moo di ak tooñ képp koo xam ne sa jikko jikko tooñ la di tooñ nit ñi tabarakallahu tooñ baaxul suñ borom subhanahu wa taala nee na man day araamal naa tooñ sama diggante ak yéen li ma leen di bind bind moom leen am sañ-sañ te la xujja illa li xaaliqil xujja su ma leen tooñan sax bu ma layoog yéen na yey leen ndax maa leen bind waaw tabarkalla maa leen moom li may am pouvoir boobu yëpp taxul nag ma tooñ leen duma leen tooñ mukk ndax xaraamal naa ko ci sama bopp waaw suñ borom subhanahu wa taala wax na ne inna allaha la yadlimu mithqala darratin wa in taku xasanatan yudaacifaha wa yuuti min ladunhu ajran cadima suratu nisa moom ñu xamal ne moom suñ borom subhanahu wa taala nee na du tooñ doomu aadama bi nee na doonte lu tol ni atom la nee na du ko wàññi ci àqam mukk waaw mukk mukk mukk mukk nee yomal xiyaam daal kenn ku ne langa nga jëf moom la lay jox te du ca wàññi dara waaw kon nag képp koo xam ne tabaarakallaahu eh, yaa ngi dund ak say mbokki jullit wala say dëkkandoo na nga fexe ba moy tuddi len togn bul wañi sen xorma bul wañi ci sen àq dara tabarakallahu kenn ku ne lay lamu am ci yow jox ko ko te bu ca wañi dara ndax suñu borom subhanahu wa taala lolu la jëflanté ak ñun te itam lolu lañu ñu digal mu ñu xamal ni itam ne ëllëg yomal xiyam nee na maandu rek lay doxal ak ñun wa nadau almawasina alqista li yowmi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kaana mithla wa in kaana mithqaala xabbatin min xardalin ataynaa biha wa kafa bina xaasibin aaya 47 anbiya suñ boroom subhaanahu wa taala nee na bisa ngi ñëw daañu teg balance yi pour atte jaam yi nee na balance yooyu nag nee na balance yu maandu la yoo xam ne nee na dula la wàññil yow ki dara ci sa àq loo xam ne dana la ko xañ donte tuutee na ne atom nee na du ko ca wàññi kon suñ borom subhaanahu wa taala mu ngi xamal ak maandu ci suñu diggante bañ itam di tooñante eh, mu ngi xamalaat itam ne al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna allaha sari'ul xisaab ba tey aaya boobu itam mu ngi xamal ne yomal xiyaam nee na suñu boroom subhaanahu wa taala dana wax ne bis bii day bakkan bu ne daañu ko fay la mu doon jëf te duñ ca wàññi dara te suñ boroom itam ku gaaw ci ni muy régler <clears throat> jaamam yi la ci bis boobule kon suñ borom ak ñu xamal ne wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura mu ñuy xamal ne nit ki daal la mu jëf rek la am nee na itam te lépp lu mu jëf ëllëg yomal am muy lu baax wala muy lu bon nee na dana ca teg bëtam daañu ko jox kon euh, li nu bëgg mooy ñàkk tooñ googu nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala melowoo na ko digal ñu itam ñu melowoo ko mu ñuy moytandikuloo tooñ bokk na ci résultat yi nga xam ne tooñ dana ko jur mooy boo demee ba nekk tooñkat di tooñ sa dëkkandoo wala ngay tooñ sa mbokku jullit lam lay jural mooy boo jullee yàlla du ko nangu boo wore yàlla du ko nangu moo tax bëri na jaamukatu yàlla bu ñuy joxoñ fekk yàlla nangu lu ko dara ndax mm, tooñ ku muy tooñ ay dëkkandoom wala tooñ bu tooñ bu muy tooñ soxnaam wala tooñ bu tooñ bu muy tooñ ay doomam wala tooñ bu muy tooñ way juram wala tooñ bu muy tooñ tabarakallahu nit ñi waaw ndax tooñ baaxul ba ci ki nga bokkulul diine sax mu di ab yéeféer moytu ko tooñ ndax tooñ baaxul الظلم ظلمات يوم القيامة ñu ne bokk na ci jikko yi nga xam ne day tax jëfi doomu aadama bi du yéeg lu ñuy tuddee xaswatul qalbi mooy ñàkk yërmande waaw ñàkk yërmande xol bu bon xol bu bon ñàkk yërmande tabaarakallaahu fan yii eh, am na xew-xew boo xam ne ba léegi wax dëgg yàlla eh, góom la def ci xol yi muy naqar boo xam ne sori na lool ci xol yi tabaarakallaahu ci soxna soosu nga xam ne faat nanu ko faat bu ñaaw tabarakallahu faat bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a moom tabarakallahu eh, soxna suusu yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal te yal na ko yàlla dëkkal ca àjjana firdaws bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax eh, kii nga xam ne boom na ko def na lu ñaaw tooñ na ko benn bi ci des itam ñàkk na yërmande bi ci des itam warkat la waaw ku ñàkk wëllëre la ndax nit ku la embauché tabaarakallaahu eh, jële la ci chômage nga mën tabaarakallaahu eh, jëflanteeg moom jëf ju ñaaw ji loolu moo lay wan ne ñu ngi ci axiru zaman ñu ngi ci axiru zaman mu jug jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne balaa àdduna tukki rey dafay bari rey dafay bari waxoon na ko nee na daa ngeen dem ba gis koo xam ne dafay rey te du xam lu tax mu rey waaw nee na ki ñu rey itam bu ñu ko laajoon du xam lu tax ñu rey ko waaw loolu lépp ci màndarga yi tabaarakallaahu bis penc la adduna bi nag léegi dafa tëddi noo xamante ni bëgg àdduna tax na nit sañ def lu ne ci ay musiba waaw bëgg àdduna tax na nit sañ def lu ne ci ay musiba parce que dañuy jël alal jiital ko ci lépp waaw bëgg a tekki tabaarakallaahu bëgg tekki am am bu gaaw te am na am am goo xamante ni amul solo ndax bari le barkel le moom moo ko gën ba na ni société bi bindoo nga xam ne nit ñi lépp alal leen ci jiital te bu njëkk da daan gis wax dëgg yàlla kiy jàngale bëgg ñi muy jàngal xam rekk moo ko tax di jàngale waaye alal taxuloon muy jàngale waaye léegi jàngalekat yépp alal daanaka moo leen tax di jàngale moo tax grève yi bari bu njëkk ba néew na nga gis professeur wala ay enseignant yuy grève waaw ndax wax dëgg yàlla njàngale mi jiitaluñ ci woon alal dañ ca bëggoon rek mooy jàpp ci société bi ba ñëpp xam boo toppee secteur yu bari loolu nga fay gis ba ci pom yi da daan gis mbëru làmb boo xam ne dëgg yàlla eh, bëgg bëre rek moo ko daan tax di bëre waaye daanaka wut ci woon alal waaye léegi gis nga eh, làmb ji daanaka léegi alal rek la ci nit ñi di wut kenn ku ne eh, dangay ngay E ngir alal ji nga ca dégg kon société la boo xamante ni suñ société daanaka société alal la dañoo jiitel alal ci lépp e da nga daan gis itam médecin boo xam ne e, faj gi muy faj bëgg-bëggam moo doon ku mu faj rek nga wér mu bëgg métier bi lool bëgg ci ndam lool tabaarakallaahu waaye dem nañ ba léegi médecin yëpp. daanaka alal la ñuy wut léegi ci mécc mi waaye wutatuñ ci mérite wutatuñ ci ndam tabaarakallaahu moo tax ngeen gis waw xol gi nga xamante ni xamuñu ko woon ci médecin yi léegi ngeen gis ko ngirub alal alal jooju nag tey mooy li nga xamante ni tey mooy yàlla ju ñuy jaamu mooy yàlla ji ñuy jaamu bu njëkk ba itam sëriñ bi da daan nit ñi rek te yàlla tax waaw gindi nit ñi te yàlla tax soxlawul ci ñoom dërëm waaye léegi taar daanaka sëriñ si soxlaatuñu taalibe eh, bu amul dara lu nu bëgg rek mooy taalibe boo xam ne tabaarakallaahu ah ministre la wala député la ah, wala grand commerçant la tabaarakallaahu wala homme d'affaires la Ah, ngir ñuy mën a am ci moom dara société nag bu demee ba bindoo noonu nga xam ne dañu jël alal jiital ko ci lépp mooy waral yenn crime yi di am waaw mooy waral yenn crime yi di am su ko defee nag eh, mag ñi ubbi na nañu école tasawuf ngir jàjj xol yi ngir defal xol yi ngir setal xol yi daanaka nag liggéey bi mu ngi soog a am njariñ fii ci suñ jamono leen ko soxla li ñu bëgg mooy nit ñi defaraat daara yi tarbiyaat nit ñi yeesalaat njàngale mag ñi ngir mën a defar xol yi ndax xol yi yàqu na xol yi yàqu na ci bëgg àdduna te bëgg àdduna itam mooy daanaka bopp النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها من النفس بكا بدي تبكي موي جوي على الدنيا ci لأن nee na bakkan جوي أدنا ngi jooy أدنا di ko wut rek di ko wuti nu ne waaw tabarkalla di ko wuti nu ba jaral na ko faat bakkan pour rek am àdduna waaw ñu faate soxna su baax si tabaarakallaahu Fatimatu Maxtaar Njaay yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko tabaarakallaahu yal na ko yàlla dëkkal ci àjjana firdaws allahuma ijal qabraha rawdatan min riyaadil janna suñ boroom yàlla nga def bàmmeelam mu di jardin ci jardin àjjana yi bi di ay saydil wujud kii ko fàdde yi def na lu ñaaw tabaarakallaahu def na lu ñaaw def na lu bon def na loo xam ne naqari na jullit ñëpp raq naqari na réew mépp tabaarakallaahu dara waralu ko nag lu dul bëgg àdduna topp alal ak poñetum àdduna rek moo ko waral ndax bëgg àdduna moom mooy bopp ñaawteef yi moo tax waykat ba ne an nafsu tabki bakkan baa ngay jooy ala dunia ci àdduna waxad alima te xam na ne ana saadata nee na texe fiiha ci àdduna nee na boo bëggee am bonheur ci àdduna bëgga texe ci àdduna nee na tarku ma fiiha nee na da bàyyi lépp lu nekk ci biir àdduna nee na tax nga am bonheur waaw waaye boo bëggee àdduna nag ci ay musiba rek ngay dugg waaw ci ay musiba rek ngay dugg soo demee tey ci prison yi ci kaso yi daanaka ñu bari ñoo fa gis ñu tëdd àddunaa leen fa dugal leen fa waaw waaye ñiy wut yàlla ñoom bu ñu tabaarakallaahu tëddee rek nelaw waaw ndax ñoom dong ñoo am bonheur waaw ñoom dong ñoo ko am tabaarkalla moo tax waykat ba wax na ne ma laddatul ayshi illa soxbatul fuqara wa humu salaatinu wa saadaatu wal umara fuqaraa yooyu moom la soxla ci jamono bii nee na ma laddatul ayshi déet neexaayu dund nekkul illa soxbatul lu dul ànd ak gaañ nga xamante ni yàlla lañuy ñuy wut te soxla ko di ko wut nag ci wut ba te jaar yoon waaw nga xam ne wéetal nañu seen xol ci lépp luy bëgg àdduna sànni tindi nañ ci seen xol lépp loo xam ne tilim tilimu jikko la ak gàkk sànni jël yàlla dugal fa nag di taxam ci ku yàlla yëg yàlla lool ci seen xol waaw ku ñuy àndal yàllaay tax ku ñuy jàpp yàlla yàllaay tax ku ñuy yàlla yàllaay tax foo leen gis seen tànk tegu fa yàlla tax fu ñu teg seen bët yàlla tax waaw ñooñu nag ñoo am bonheur waaw ñoo ñoo texe waaw nee na boo bëggee nag am texe nee na del ànd ak foqaraawu yooyu waaye boo àndee nag ñi bëgg àdduna muy politiciens yi tabaarakallaahu ak ñi mel ni ñoom tabaarakallaahu su boobaa nag yaa ngi ci musiba boo xamante ni lu ne mën na la caa dal waaw moo tax mu ne an nafsu bakkan bi day tab ki mu ngay jooy ala dunia ci àdduna waaw bëgg àdduna bëgg na lu fi tabax bu baax mu dellu ca tuulul amal biñ doon wax waaw bëgg am kër gu baax am jabar ju rafet am oto bu rafet am doom yoo tabarkalla yu tekki waaw lu ne nga bëgg koo am nee na loolu ay fitnay kese la ay coonay kese la ay angoisse kese la waaw nee na nag soo bëggee nag am bonheur ci àdduna nee na fokk nag nga bàyyi àdduna ak lépp lu nekk ci biir mu ne laa daara déet kër lil mar idi ñeel nit ki yeskunuha boo xam ne dana ko dëkke baadal mawti gannaaw bu génnee àdduna